tàllal leen loxo yi gën di mindeef daara way gën di mindeef daara ji njiñ leen bismillahi rahmani rahim إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات man yahdihi la fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala buistu li utammima makarima al axlaaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akoona ahaba min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki téléspectateur u fkr 92 point com dikkaat nañu fi ak yéen di def ak yéen seen émission ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme que ñoo ngi ci weeru koor tabaarakalla te ñoo ngi ci fukki fan yu njëkk yi te kenn ku ne xam nga fukki fan yu njëkk yi mooy yërmande kon ma buggoon nag ñu waxtaan ci yërmande fukki fan yu njëkk yi mooy yërmande yi ci digg bi sallallahu alayhi wa mooy njëggal yu mujj yi nee mooy goree goreel ca safara itqud mina naar léegi nag gannaaw ñoom ci fukk yu njëkk yi kon nañu waxtaan ci yërmande allahu akbar yàlla subhanahu wa taala mooy borom yërmande mooy arrahman mooy arrahim muy arrahman muy arrahim rahman mooy kiy xéewalal ñépp ci kaw suuf yàlla nga gëm ko nga bañ ko gëm nga nangul ko nga bañ ko nangul ngay jullit bañ a nekk jullit ngay nit ngay jinne ngay rab ngay bàyyi ma sunu borom jël na yërmandeem def ko ci yow allahu akbar sunu borom jël na yërmandeem def ko ci yow amul ku newul ci yërmande yàlla ci kaw suuf ñëpp a ngi ci yërmandeem boo seetee sax boo seetee sax ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo ko ñàkk gëm ñàkk dëggal yonent yàlla Muhammad ñooñu sax boo seetee la gën a teral kaw suuf ñoo gën xam kan mooy yàlla allahu boo seet ci seetlu laa wax ci seetlu ñi nga xamante ne ñoom gëmuñ yàlla ak ñi nga xamante ne ñoom tabaarakallah dëggaluñu sayyidina Muhammad ñooñu la gën a teral ci seetlu rek jarul seet téere jarul dara ñi gëmul yàlla kon yërmandeem kenn mënu ko waat ñëpp nga ci biir yërmandeem ku bëri yërmande la tabaarakallah mooy arrahman arrahim nag mooy aji xat ji yërmande ëllëg ba yow mi ko gëmul woon ci kaw suuf soo ko bëggee gëm mu beeru ji ak ña ko gëmoon ci kaw suuf rahman bokkul ak rahim rahim mooy aji muy aji yaatu ji yërmande ba boo ko boolewul ci sa bopp moom mu boole la ci boppam arrahman aji yaatu ji yërmande ba boo ko boolewul ci sa bopp mu boole la ci boppam araxiim aji xat ji yërmande ba boo bëggoon ñëw bokk nga bëgg ñëw bokk moom yàlla subhanahu wa taala mu am fullay beeru ji ak ña ko gëmoon waaw ñoom rek lay taral ña ko gëmoon rek lay taral allahu akbar suñu borom ko bari yërmande la ku bari yërmande la yërmande moo jiitu meram damay faral di wax nañu jóge diggante yàlla ak jaamam yi bu kenn dugal kenn safara bu kenn lekk kenn bu kenn dóor kenn ay bolde bu kenn indil kenn ay jaan ci bàmmeel déedéet sunu borom yërmandeem yegg na ba ci bu ko neexee bu ko neexee yow ma xam mu ne ñëpp tàbbal dugal leen àjjana bu ko neexee bu ko neexee sëriñ Fallou Mbacké dafa toog bés jékki-jékki rek am benn néew bu romb Serigne Fallou Mbacké ne yàlla na ko yàlla yërëm am benn taalibe bu ko ne sëriñ bi kii du jullit néew bi du jullit. sëñ Fallou Mbacke newaat yàlla na ko yàlla yërëm mu ne new bi du jullit taalibe bi wax ko lool sëñ Fallou Mbacke newaat yàlla na ko yàlla yërëm taalibe bi newaat néew bi du jullit mu ne ko loo iñaanee loo soxoree àjjana xaj nga fa xaj naa fa kii xaj na fa waaye bàyyi ko mu dem àjjana waay ndeysaan ca yërmande ja ca mbaax allahu akbar sallallahu alayhi wa dafa ni saxaaba yi ndax bëgg ngeen gis kuy dem safara saxaaba yi ndeysaan xoolante yonent bi ne bu nu sëlmalee tisbaar bu nu sëlmalee tisbaar kuy njëkk génn ci jumaa ji safara la jëm yonent bi sallallahu alayhi wa nag bu kenn nag des ci jumaa ji ne kenn ku ne génn waxtu waa nga daan génn saxaaba yi ndeysaan fa yéene dëkk ci jumaa ji ndeysaan kenn bul dem safara ñu sëlmal tisbaar jékki-jékki góor gu mag jóg ndeysaan ànd ak sëtam génn jumaa ji waxu yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waxu bàyyi fatimatu bintu rasul la alayhi salaatu wasalaam waxam kenn du ko werante lu mu wax dëgg la lu mu wax ba pare dëgg la lu muy bëgg wax dëgg la sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ñëpp di ko xoolee bëtu ku nar a dem safara salaa salaam toogaat di waxtaan ak ñoom ne leen ndax da ngeen gis kuy dem àjjana ñu ni ko waaw yaa rasulallah naa sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne bu ñu sërmalee tàkkusaan ku njëkk génn ci jumaa ji àjjana nga dem saxaaba yëpp bëgg dàkk buntu jumaa ji dàkkamtu lu dul sërmal rek ba ñu ne fojjet génn jumaa ji salaa salaam ne attention bu kenn génn heure bu mu daawul génn na kenn ku ne toog def sa at saalixaat génn heure bu nga daan génn sallallahu alayhi wa sallam ñu julli takkusaan sëlmal waaja génnoon góor ga génnoon tisbaar njëkkoot génn génnaat njëkk génn saxaaba yi ñépp gàgg ku ne jaaxle ku ne tiit waaw kii moo njëkkoon génn te salaa waxoon na sànq ci tisbaar ku njëkk génn dem safara sallallahu alayhi waxaat ne ku njëkk génn dem tàkk génn ku njëkk génn dem àjjana ci tàkkusaan bi waa ji génnat loolu nu mën nekkee ay teel ñu dem ci Seydina Muhammad ñu àndandoo dem ci rasulullah bàyyi Fatima bint rasul ne xam naa jaaxle ngeen de ñu ne ko jaaxle nañu lool dañoo bëgg daal nga gindi ñu ci yërmande dañoo bëgg nga gindi ñu yow sallallahu alayhi wasallam salaatu wasalaam ne ba ma leen waxee ku bëgg gis kuy dem safara mooy ku njëkk génn ci jumaa ji ba waxtu wi muy génn ci jumaa ji nitu safara la woon allahu akbar waxtu tisbaar ja li tax sunu borom ëlbati ko ba dugal ko àjjana ba ngeen xam ne nitu àjjana la ndax moo njëkk génn tàkkusaan mooy bi muy ñëw bi muy ñëw waxtu takkusaan di julli si dafa ànd ak sët bi sët bi xool asamaan si mu ne ko maam mu ne ko labayka mu ne ko asamaan yaatu na de góor gi ne ko yërmande yàlla gën a yaatu allahu akbar yërmande yàlla gën a yaatu sayyidina muhammad na leen kàddu googu mu wax sallallahu alayhi wasallam di leen nettali de kàddu googu mu wax moo tax yàlla ëlbati safara bi dugal ko àjjana alayhi salaatu wasalaam sadaqa rasul saxaaba yëpp na yiwaat ndeysaan xam ni sallallahu alayhi wa sallam gàgganti na ñëpp bàyyi Fatimatu bint Rasul kenn du yonent bi dafa am ku jamonante ak yonent yàlla Moussa ku jamonante ak yonent yàlla Moussa ndeysaan yàlla Moussa moo daan waxanteeg yàlla moo daan kalaamullah allahu akbar moo daan waxanteeg yàlla kaliimullah moo daan waxanteeg yàlla moo daan waxanteeg yàlla moom yonent yàlla Moussa am benn waaye boo xam ne ku safaanu la woon ca jamonoom waa ji safaanu lool mosul def lu baax mosul def lu baax waa ji génn àddina ba mu génn àddina yàlla na yonent yàlla Moussa demal nga sangulu ko nga sangulu ko nga jullee ko te seen façon nga julli jamono yi muusa laa wax nga suuli ko ndax man yàlla àjjana laa ko jëmee te waa ji musul wax lu baax musul def lu baax allahu akbar Moussa yàlla man gag na yàlla dimbali ma man gag na waa jii lan moo tax lan moo tax nga may ko àjjana te musul def lu baax ak lu mu def ba am àjjana te musul wax lu baax mu ne ko dafa wax ak man ci lisaanul xaalam te rek mu nekkee ci firaasul mawti ba mu nekkee ci maradul mawti war a génn àddina dafa wax ak man dafa wax ak man dafa wax lan la wax ak man yàlla di nettali yoon ci yàlla Moussa di wax ak Moussa ndeysaan boobu lam yo damm na mu ne ko yàlla maa ngi bon lool ku bon nga nii di ñëw ci yow maa ngi ci sukuraat waaye yàlla benn mbir laa lay xamal yàlla subhanahu wa taala zakama xam naa ne ku bon laa waaye li may bon yëpp bëgguma ci mbon gi dara nattu rek la benn ñaareel ba mu ni ko yàlla yàlla mu nettali Moussa li tax mu dugal ko biir àjjana mu ni ko yàlla mu ni ko labbayk mu ni ko yàlla ku bon laa maa ngi nii di waaj a ñëw maa ngi ci sukuraat waaye yàlla koo baax leeg loo baax le bëgg naa ko allahu akbar ak li may bon yëpp ñetteel ba mu ni ko yàlla ku bon laa ku bon a ngi nii di waaj a ñëw yàlla leen laa lay xamal subhanahu wa taala bu fekkente ne yàlla nga dugal ma àjjana dugal ma àjjana daf lay wàññi dara bu ma ci dugal ndax man yàlla bugguma lu ndax man ndax man sa jaam bugguma bugguma lu la wàññi ñeenteel ba mu ne yàlla sa jaam bu bone ngi nii di ñëw man ngi ci sukuraat bu fekkente ne nga dugal ma safara daf lay jariñ dara ew yàlla dugal ma ca ndax lu la jariñ rek laa bëgg juróomeel ba mu ne ko yàlla subhanahu wa taala te nag awma ma yow te yaakaaruma lu dul sa loolu ma ci intéressé aw ma ku dul yow te yaakaaruma lu dul sa yërmande tabaarakallah yàlla dégg waxu jaamam boobu ci la sukkandiku ci yërmandeem tàbbal ko àjjana mu ne Moussa lii la ma waa ji wax moo tax xoolatuma gisatuma lépp lu mu defoon ci lu ñaaw ak ci lu bon waxtu bi dab nañu macha allah kon yërmande yàlla ngi noonu yàlla na yërmandeem jiitu ci ñin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtu waxtu bi dab nañu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp seen mbokk seen xarit xaadim seen moo doon def émission bu rëy boobu muy ma sopp rasulilaay ci site bu mag boobu fkr 92 point com asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara